maintenant nag li ci kanam daal di bët. ok ak un faux député à l'Assemblée nationale bokk ci Yewwi Askan Wi. bokk ci benn bokk yaakaar pas Yewwi benn bokk yaakaar. itam looy wax nii. mais Pape le faux député était a été déniché dans le groupe benn bokk yaakaar tamit tout de même on était à l'intérieur. xanaa mais Barthélémy xanaa ñaari faux député la. Pape Pape. mais xanaa ñaari faux député la Barthélémy man je cherche pas à savoir ce que la presse a relayé. le député là qui est monté fàttali naa sax turam il a la preuve. bañ cee génne bañ cee génne ñoom ñoo ko remplacé ak benn femme. Barthélémy Coumba Ndoffène Ndiaye. ma dama ne bañ cee génne non dama ni Coumba Ndoffène Ndiaye. mais mais Pape je te confirme. mais ñëpp xam nañ ko Yewwi Askan Wi la bokk. il a été remplacé par une femme de Benno. je je je, je n'invente rien tout on y était. non attends expliquez ma lu ma mën a comprendre li nga wax ni mën ma ko xam. mais nee naa la gis nañ ko ci photo yi nga xam ni. waaw mais ñëpp gis nañ ko photo yi leader yi. Euh, Yewwi yi bokk gis nañ ci photo moom personnellement. oui mais il n'a pas été investi sur notre liste il est sorti sur notre sur moo tax lépp jaxasoo foofu gis nga moom bañ koy signalé ñoom ils l'ont remplacé par une femme femme bi muy dugg ñu ne ah député bu baax bi mi ngi nii toog femme moo dugg jigéen moo dugg ñun y a eu aucun faux député chez nous aucun ñoom dañ ko génnee indi ba na jigéen ne maintenant kii mooy député bu baax bi c'était une femme. loolu mooy dëgg Pape. mais Coumba Ndoffène Ndiaye xam nga ko. non je connais pas xaw ma ko. ok d' accord léegi Barth est ce que mën nga ma wax lan moo indi ñaari candidature yi président yi euh, assemblée nationale ci biir Yewwi Askan Wi lan moo ko indi. mais l' ambition est le moteur de la vie man mënu ma tere kenn nekk candidat mais man j'ai été désigné par la coalition Yewwi Askan Wi. admet xam nga désignation bi li ma ci jaaxal mooy yow yaa a annoncé a génne communiqué bi. bon Pape dinaa la def benn confidence. ok Khalifa Sall ma nekk candidat présidence assemblée nationale ma ne ko comment ça mu ne xam nga Pape man dafa am. mais boobu boobu fekkoon na ñu wax ni par exemple pour euh, ci biir Yewwi Askan Wi euh, conférence des leaders kenn moo ci nekk candidat. cest dire ñi nga xam ni ay militants simples lañ comme yow duñ ci nekk candidat. non non loolu xam nga pap euh, su ma neexee suba ma dem créer benn mouvement taxaw ne leader la ah mais bokk nga ci conférence des leaders leader comme Ahmed Aïdara pap euh, man soxlu ma ñit ne ma may kan xeebu ma nag kenn Sénégal xeebu ma kenn Sénégal je respecte tout le monde wante tu retiendras une chose je suis un leader né et en toute humilité Ahmed Aïdara su ma rakk la te su ma xarit la wante su ma nekkoon place am lu mu def du ma ko def wante nag je ne blâme pas parce que je considère que Ahmed n'a pas la culture politique que nous avons nous avons fait des jeunesses politiques nous avons fréquenté des bureaux politiques nous avons fréquenté des comités euh, centrales etc Ahmed euh, dafa ànd tamit ak ay nit c'est tout à fait normal peut-être ay nit ne ko Ahmed du tax pourquoi pas toi mais moom Ahmed xam na fu may waxee ba may dem Paris yëg na suma oto ñu dem ba aéroport ma waxtaan ak Ahmed ma expliqué ko lu tax nogul nekk candidat pour présidence assemblée nationale ma jox ko ay argument explique ko ñu ñëw ñu ñëw ci poste vice présidence yi mais expliqué ko lu tax ce serait très difficile de défendre sa candidature pour un poste de vice président parce que quatre rek dañ ci am te parti yi nga xam ne dañu am ay envergure nationale ils vont prétendre à ces postes moo mooy PASTEF mooy PUR mooy PDS wallu ak euh, taxaw comme man yàlla mës na ma baaxee ma def assemblée douzième législature ma expliqué ko lan mooy président de groupe parlementaire lan mooy vice président de groupe parlementaire lan mooy président de de de commission ak lan mooy vice président lan mooy secrétaire élu donc je lui ai des pistes mais il s'est entêté ne moom dafa bëgg a nekk candidat présidence ma ne ko ah, d'accord bismillah da la yàlla d'accord mais en est-ce que amul fu. Yewwi décidé woon que ni une fois à l'Assemblée nationale kenn ci leader yi mooy nekk président Assemblée nationale. non on m'a désigné Barthélémy Diaz comme étant le candidat de Yewwi Askan et ça Ahmed Aïdara était au courant te on le doit annoncer dans la conférence des leaders. ah mais man li ma jaaxal mooy yow yaa ko non non non non yow yaa ko njëkk a annoncé bien avant que communiqué bi génn ci jour J. communiqué bi waaw communiqué bi bu muy génn. Mhm. man xamoon naa que communiqué bi day génn. le communiqué est sorti à l'aise mais loolu amul solo parce que bon xam nga Pape xam nga lu tax ma la amul solo parce que man ma meree am Ahmed parce que politique du diine politique du diine quoi je veux dire xam nga nga nekk julit ñu ne la alxuraan dafa la tënk ci lii wala nga nekk catholique ñu ne la bible bi dafa la tënk ci lii nga déggee ko noonu mais politique c'est c'est un choc d'ambition mais pour man su ma naroon tey critiquer Ahmed Aïdara du ma am argument parce que je n'ai pas d'argument pour le PDS parce que PDS dañu nekk ci intercoalition logique pour logique ñoom ñu am 24 députés ñun ñu am 56 députés waaw est-ce que xalaat nga yow que waa PDS noonu lañu am sax sañ-sañ ñoom dañuy nekk euh, candidat pour intercoalition mais non normalement mais ñoom ils sont sur des principes et nous on considérait que vu la gravité de l'heure principe taxawu fi parce que foog ñu jàkkaarloo ak wante man Barthélémy Diaz vu ma trajectoire fu ma jaar ci PS je suis mal placé pour dire au PDS narul am candidat wante logique pour logique man de su ma nekkoon place su PDS te mu wóor ma ne que tey le Sénégal souffre de Macky man ma man ma jàppale ñu ma ëppale ay député ànd ak ñoom mais loolu su ma gis-gis la. d'accord laaj naa la léegi lu jëm ci amnistie Karim Wade ak Khalifa Sall <coughs> nga ni ma non loolu après la pourquoi mu nekk après. loolu priorité la war a doon. c'est politique. ah comme c'est politique aussi priorité la war a doon parce que loolu nekkoon na thème de campagne wax ngeen ko ñëpp dégg ko. lan ngeen ci xaar ci loolu. mais Pape ñu nga xam ni ñu ngi fii tey di ñaan yàlla na Barthélemy gaaw a jóge assemblée nationale mais parce que xam nañ ki lii dafa bokk ci yenn xeex yu may xeex te day jàll. day jàll parce que Macky Sall est minoritaire du ma moo waxoon dafa amoon 83 du loolu la waxoon waaw mais su ma juumalee foofu am na ko am na foofu kenn ko fa meral pour ne pas am na ñu fa mer waaw maintenant lu nga wax léegi nii xam nga ñun am nañ ci intérêt PDS am nañ ci intérêt kon déjà on on est déjà kon 80 te on ne modifie que la que le code électoral lu Macky Sall noon la mooy le mot électeur boobu rek lañuy changé teg ci nag ci assemblée bi am na fa ay non ñoom tamit ñu ne ñoom tamit dañu bokk tamit ci opposition. d'accord on aura l'opportunité de voir s'ils sont de l'opposition ou pas. d'accord alors non inscrits yooyu kenn ki nga tuddee ko mannequin kenn ki nga gaaruwaale ko un aigri. non defuma loolu mais lan nga def. defuma loolu lan nga def. tontu mooy mais ma dégg nga wax li nga wax. tontu du forox. kenn ki nga tuddee ko mannequin kenn ki nga ñoom ñëpp nga xas leen ñoom ñëpp nga xas leen. dama ne l'Assemblée nationale ce n'est pas une piste de mannequinat yow munoo egg démb musoo toog assemblée. xamoo dara ci assemblée ngay bëgg a wax ci lu nga xamut tout de même respecter les gens man lu mu bon bon bon. j'ai fait cinq ans à l'assemblée mais dafa war a réciproque respect bi nga wax nii non pas du tout. non dafa war a si si pas du tout xam nga non déglu ma xam nga man dinaa wax dara. ok quand il y a eu le premier soi-disant le problème ak Ousmane Sonko ba Ousmane Sonko waxee xaw ma daan man kenn déggu ma ci man biir aar Sénégal.